jaajëfalaat bu baax yéen suñu internet yi ñuy topp ci li nga xam te ni mooy Leewtoo TV chaque matin ngir indi leen li gën a fës ci bopp xibaar yi jaajëfal internet yi leen béggee bu baax a baax di leen ñaanal kenn jàmm mbay baax ko nuyu naa la jërëjëf Ndeye fay naa la nuyu bu baax a baax suñu mbokk yépp ñuy topp ci Leewtoo TV ñaanal leen jàmm ak salaam asalwaalo nuyu naa la Ndeye Mbacke fay naa la amaan mbégte jàkkaarloog internetu Leewtoo TV pour indi gën a fës ci yéenekaay yi mu noonu revue bi nag di leen fàttali toujours seen huile J'adore moo leen koy may mercredi 3 mars 2021 journal suñu lamb xëy ci xëtam mu njëkk bête noire des VIP de Guédiawaye Eumeu Sène va-t-il mettre Balla Gaye 2 et Lac de Guiers 2 à ses pieds noonu la ko journal bi xamalee nee na euh, moom mi leen di Eumeu seen borom taay singa borom dof du wër moom mii moom mooy bête noire u VIP yi nekk fële ci Guédiawaye ndax daan na Balla Gaye daan na ki nga xam ne moom mooy Lac de Guiers Assane dëgg la Mbaye Babacar ni nga ko waxee noonu la bête noire des VIP de Guédiawaye Eumeu Sène va-t-il mettre l'acte 2 et Balla Gaye à noonu la ko journal suñu lam waxee nee na Balla Gaye Eumeu Sène vacciné ko vacciné na ko deux fois ndax daan na ko le 20 le 8 février 2009 daanaat ko également le 5 avril 2015 lak moom euh, journal suñu làmb nee ne Eumeu Sène lëwal la ko jox ndax daanee na ko le 8 avril 2012 waaye nag jot nañoo niil le 28 février 2010 ñu fàttali ne combat boobu mi ngi xewee la 4 mi ngi war a am le 4 avril bi ñu ñu ñu ñu jëm ma fàttali également que ne Eumeu euh, Mbaye Babacar Eumeu Sène musul daa daanu ci mois d' avril jot na cee am trois combats ndax daan na ci Ousa Sow le avril 2000 2000. Hmm. avril 2012 Balla Gaye 2 avril ñetti combats yi la ci jot a bëri te mosu cee daan. kon mën nañ jàpp ne moom mois d' jig na ko. mois d' jig na ko te avril la jëmaat kon Lac de Guiers euh, war naa war naa tiit. kon Lac de Guiers na waajaat bu baax a baax. war na waajaat. Baalu deferee ce déjà fait mu ngi noonu France Tyson 2 Malamine Garga 2. Vox Arena organise son g cinq le 30 mai incha allah. yooyu les combats Vox Arena ñoom ñoo ko taxawal incha allah bu ci yàlla àndee le 30 mais muy dox ci diggante Franc ak Tyson 2 wante maamal Lamine war a jàkkaarloo Garga de Assane. toftal nañ ci yeneen combat dëgg la Mbaye Babacar ni nga ko waxee noonu la Vox Arena organise son G5 le 30 mai maanaam G5 yi moom mooy cinq combat la dajale war ko tëgg le 5 mai boobu cinq combat yooyu mi ngi war a dox ci Franc de 2 Mama Lamine Garga de war na am Noiro Moustique Alliance Baldé caatu ngéwal ak Fourière Baye Magnon Junior loolu nag daf euh, li ñu fas yéene def mooy que ne vainqueur combat yi war na leen a tëggaat yeneen combat balaa saison ya jeex date boobu mi ngi ko prévoir le 4 juillet 2021. kon combat yooyu ku ci am ndam ndam rek incha allah Arena Vox dana la amalaat dana la tëggalaat yeneen combat. dëgg la Mbaye Babacar ku ci am ndam beneen combat mi lay xaar ci ginnaaw. double moteur caatu rëbës Zal Babal les trois guerriers de rëbës. en mission commando. ñetti jàmbaar yooyu nga xam ne ña nga fële ca rëbës ñi ngi euh, waajal seen ay combat ndax ku ci nekk yem nga client ba nga xamante ne bii foo koy yàkkalee moo lay jaaxal muy ko double moteur di caatu rëbës ak Jal Bawol Assane. dëgg la Mbaye Babacar double moteur caatu Rebeuss et Zal Baol ni nga ko waxee journal suñu làmb lee ne les trois guerriers de Rebeuss en mission commando double moteur mi ngi war a jàkkaarloo ak Quench caatu Rebeuss mi ngi war a dajeek Liss Ndiago Zal Baol moom caatu Yaraax la war a euh, dajeek mais mais combat combat caatu Rebeuss Liss Ndiago moom combat la ci biir combat yi. combat la ci biir combat yi Babacar ni nga ko waxee ndax ñaari technicien la ay boy lan ay xale lan ci làmb mais ay techniciens yu mag lan. incha Sigori descend le poulain du roi du guy gi 95 un gros paleton m'a évité. Euh, Sikori moo yëkkati yooyu la kàddu ci biir journal bi nee na booy wër tàppet boo daje ak guy gi 95 boo ko rombee perte nga ndax ñoom ñaar taxaw dox nañ seen combat mu lalli dëgg la Mbaye Babacar ni nga ko waxee noonu la ko Sikori waxee Sikori nag mi ngi nekk écurie Dakar benn waxtaan la da amal ak euh, journal suñu làmb li mu fa ne guy gi 95 tapet bu mag la ndax da leen euh, lëy njaay moom moo tëgg seen combat. Ah. mu daw ko waaye nee na nag nekkul fii xaarul rek mm, nekkul fii di xaar guy gi 95 pare na également pour bëre kii di euh, Pape Ndoye numéro 2. <laughs> ñàkk jariñu chef de file de l'écurie mbooloo moom ci la mu wax nee na huis neexul waaye ku amul la fa gën am la fa sës. ñàkk jëriñu moo yëkkati yooyu la kàddu moom mooy tête de filu euh, caaro yu mbooloo moom nee na huis clos bi neexul ci mbër yi neexul ci amateurs yi neexul ci kenn ku yëngu ci làmb wante nag moo fi sës ku amul yaay ku amul yaay ku nekk fexe rek nàmp maam. dëgg la Mbaye Babacar euh, ñaxa jariñu moom mooy chef de file écurie bii di Caaroy Mbooloo moom ne dafa séex ak waxtaan wu yaatu si journal suñu làmb li mu fa wax nee ne comme huis clos bi moo fi sës amul leneen nan ko def rek te muñ ba beneen yoon wax na euh, revenir na également ci combat bi dojo da bi mu amooloon contre euh, euh, Aliou Seydou daaw te mu amoon problème yi uh-huh. wax na également que ne moom pare na pour def MMA mais nag waxtaan wu yaatu wi Abdoulaye jaañ la ko séqal Abdoulaye jaañ moom mooy correspondant suñu làmb ak stade Kaolack ñoo nekkoon samedi bële passé mu xamal nañu moom bés bu jëlee pause 13 heures Leewtoo TV rek lay seetaan bëggee bu baax a baax. ma nga noonu seulement trois défaites en neuf ans double Tyson kas la barak. kooku moom mooy double Tyson def na ci arène bi Assane juróom-ñeenti at. wante ñetti defet rek la ci jëlee di mbër ma nga xamante ne bii mu ngi ci yoon mbër mu mën a bëre am gannaaw mbër mu mën a bàyyi xel tamit dëgg la Mbaye Babacar kii Gambie Sénégal toj na ko noonu la ko journal suñu làmb waxee nee ne neuf ans nga moom trois defet rek la amagum ah. euh, journal suñu làmb nag ñëw na ci trois defet yooyu nee ne en 2012 moom Tyson gin gi neew moo ko daane 2013 Tanor bu Diourbel moo ko daane 2019 Pape mbay 2 moom moo mujj ci kawam ba léegi ah ci journal suñu laam lañuy desandi Gris Bordeaux s'inquiète de Bébé Saloum. mi ngi noonu moom moom mi lay jiite association des des de des moom mi la jiite association des lutteurs en activité di Gris Bordeaux. seete woon na bébé Saloum gannaaw ba ko yoon tegee loxo Assane. dëgg la Mbaye Babacar Gris Bordeaux cinquière de bébé Saloum maanaam demoon na seeti ko euh, prison mu ngi fàttali que nekk bébé Saloum dañ ko arrêté sam ba le passé. Ah. pour des histoires de faux billets ay faux billets lañ ko jàppee léegi nag Gris Bordeaux demoon na seeti ko lii ku ko xamle moom mooy Mbaye Dieye Faye di xaritu euh, bébé Saloum nee na ñoom sax jot nañoo wax ak bébé Saloum te instant yi mu ngi mu ngi foofu ñu yàlla na ko fa yàlla génnee ci jàmm ak salaam. amiin amiin journal record lañ jëm MMA troisième combat après Bécassou et Ngalani Reug Reug croise l'Iranien. Reug Reug moom mi moom mii mi ngi waajal ñetteelu combat bi mu war a amal ci MMA bi ñu ngi leen naan xamaguñu kan la war a jàkkaar lool wante fi mu toll nii euh, journal bi ñëw na xamal ñu ki nga xamante ne bii moom la war a jàkkaar lool Assane incha allah le 8 mars muy benn Iranien. dëgg la mbay Babacar ni nga ko waxee noonu la démb ñu ngi wax. ne rek rek xamaguñ adversaire waaye dina euh, combattre ci mois de mars bi euh, wala avril bi léegi nag leer na ki mu war a dajeek moom mooy iranien bi tudd Mehdi gi noonu la gaayan bi tudd wala mhm. euh, loolu la adversaire am bi tudd Mehdi bi nag mi ngi peser cent vingt kilos depuis 2007 2017 mi ngi ci MMA bi dernier combat bi daf ko perte Ji Won kan moo ko daanee le 5 février 2021 ñu fàttali ne combat Reug Reug bii nag mi ngi am la 8 avril 2021 tuddee ñàng moo tax mënu ko wax. <laughs> mais en tout cas li ma ci li ma ci xam mooy rek Reug ki muy ki mu war a ki mu war a jàkkaarlool poids lourd la parce que su fekkee mu ngi posé 120 kilos. kooku nekkul ku ndaw. waaw mais Reug Reug moom ay kilo je pense ay poids lourd. jaaxaluñu ko gis naan fi Gris Bo gis naan fi Elton. Elton ñoom ay poids lourd rek mu daje ñoom te gis naan fu mujj. moo tax poids lourd daal ma ne dina ko jaaxal. jaaxalul Reug Reug jaaxalu ko. di ko ci ñaanal jàmm moom doomu sénégalais boobu di Reug Reug ouverture de la saison avec une mise de trois millions la ministre annule la le gala du CNG. jëwriñ ji nga xamante ne bii moom moo gàlloo wàllu tàggat yaram ci biir réew mi ñu koy woowee Matar Ba moom daal dina fomm. Euh, gala de lutte bi nga xamante ne bii waa CNG ñoo ko waroon a amal euh, nee na daal gala boobu mënatul am nañ ko fomm ba beneen yoon beneen yoon ñu ngi ko jàppoon nag la 14 mars. bii ñu dëng man dëgg la Mbaye Babacar le 14 mars boobu la CNG bëggoon a tëgg première journée am ci saison bi. Uh-huh. malheureusement pour làmb euh, ministre bi daf ko annulé lu tax mu uh-huh. annulé ko nag nee na dañuy éviter rassemblement yi ak couvre-feu bi. Uh-huh. ñu fàttalee ne waa CNG ñi ngi bëggoon teg ci gala boobu 3 millions de francs fois moo ngi doon naan ca ka ñuy jeexalee pour la campagne de sensibilisation contre le coronavirus Balla Gaye 2 s'est fait e vacciner. Balla Gaye 2 moom mi nga xamante ne bii mooy kor buri bàcc li ñàkku na dem na ñu ñàkk ko kon nag yaakaar naa fi mu toll nii Assane yaa ci des war ngaa mën a dem ñàkk yow tamit non ba yow yow la ñuy jiital comme ni nga ko waxee noonu la Balla Gaye ñàkku na euh, lundi bi passé lu tax mu ñàkku nag mooy xam naa ne dafa ñàkku pour que supporters yi wala sénégalais yi xool ci moom pour ñàkku ji am na autorité yenn yoo xam bu ñu ñàkku looloo tax ku ci mel ni ay président ñoom Mansour Mbaye mm-hmm. genre bu demee noonu bu ñu ñàkku par pas parce que dañu vulnérable mais parce que dañu bëgg nit ñi xool si ñoom ñu topp seen gannaaw comme que Leewtoo nag yow ci <laughs> <laughs> moom boo demee rek gars yëpp am fitu dem. ayca kon préparé leen ndax man pare naa incha allah. boo paree rek ñu neex na. ma nga noonu loolu moo nekkoon li gën a fas si bopp xibaaru làmb mbay baaw kër looy tàggatoo. xanaa jaajëfal ñëpp jaajëfal euh, ñi nga xamante ni bii ñoom la ñu sekkal liggéey bi wax dëgg yàlla muy rafet lool boobu ba léegi di leen ñaanal jàmm équipe technique bi ñoom ñëpp maa ngi leen di jaajëfal xam naa di nga ci ñëw wante maa ngi jaajëfal sama dëkk Jurbel di leen ñaanal jàmm ak salaam dig daje suba ak jàmm ngay Ndeye Mbacke maa ngi lay fay di la remercier bu baax a baax a baax di remercier Mbaye Babacar amaat mbégte jàkkaarloo woon ak internetu Leewtoo TV di gërëm waa Linguère di leen remercier bu baax a baax waaye également di remercier Yacine Fall di leen jox dig daje ba suba ak jàmm incha allah moo ngi doon ah, di am contentement ak mbégte jëno ak yéen chaque suba indi ngir indi leen li gën a fas si boobu xibaar di jaajëfal sama caméraman bu ñaaw boobu mañ puro li koy waxee le Benzema di caméraman ah Ousmane Fall suñu monteur bi Yacine Aïda Matou bëgg naa leen baax baax a baax mu ngi noonu rëbi bi nag huile j'adore moo leen ko moo leen koy may chaque jour nee leen consommer local la doomu réew mi noonu ñoo ko moo ko fi def moo ko fi indi nañ ci jàpp ñu jàpp bi suñu suñu suñu njëriñ la durin baa ngi noonu durin bi gën ci durin la jaajëf leen jox dig daje ëllëg incha allah